képp koo xam ne yow àdduna rekk ngay wër sa gàddaay googu gàddaayu àdduna rekk la waaye képp koo xam ne yàlla ngay wër ak yonente bi boo ñëwee danga nga fa fekk yàlla ak yonente bi na ngeen moytu tam di dem ci jotaayu nit ku baax dafa def ay safaan ëpp naa def jotaayu nit ku baax kenn du fa dem di fa def lu ñuy tere wala loo xam ne ku la ci gis nga ruus kenn du fa dem di taxawaalu képp ku fay dem na la fa yóbbu te boo demee nekkal ci li nga war a nekk bu jeexee nga dëpp looloo lay may tuyaaba waaye dem ne gis naa sëñ bi waaye na la neexoon rek nga fa nekkee walla di tukki ànd ak koo xam ne daganu la ci lislaam loolu lépp dañ koy tere ci xeetu tukki yi nga xam ne dañ ciy jaamu yàlla kon nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax xam ne daal mbooleem xeeti teraanga yi nga xam ne doomu aadama bi ñu koy wut mi ngi ci biir guddi gi sallallahu alayhi wa sallam moom xaddis wala xaraj yàlla sunu boroom moo ko defal lim ko defal tilka rusulu faddalna baaduhum ala baad منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيناه بروح القدس كون يالا تيرانغا مي ممكن خمول لومو دون يننتي يي يالا داي واخ اك نيوم ني مو جيجين لين بوبام واي يننتي بي رك لا ني واخ ني فكان خاب خوسين او ادنى يننتي بي موم جيجين نا سونو بوروم با كين خمول ديغنتي بوبو نومو تول وا لولو موم كين مونوكو فيري mbirum yàlla rekk la kon daal maa ngi leen di soññi di soññi sama bopp laa ciy jiital fan yii buñ ko yemaleeg fan yi weesu woon nañ ci gën a góorgóorlu nañ gën a bàyyi xel suñu boroom nañ ci góorgóorlu nañ gën a bàyyi xel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nañ góorgóorlu xam ne lislaam day ay nit ñu baax ñoo jaayante tuur seen deret bañ mën cee jot ñooñu day buñ leen mënut a jotit ndax te teraanga li leen yàlla defal war nañoo góorgóorlu suñu digganteeg suñu boroom ba xam ne wàcc nañ wàcc jafe na waaye ñu góorlu kémtu lay kàttan ndax jaamu yàlla ñaar rek la jaamu yàlla sa kémtu lay kàttan ak jaamu yàlla ci ni nga ko mëne waaye ñaar yëpp mën naa ne fi nga ko mëne nag loolu mooy jafe-jafe wu ñenn ñi dañ koy defe nam leen neexee ne nii lañ ko mënee waaye loolu taxut ñuy wax niñ ko mënee mooy fi sa kàttan yam bu fa yemee li ci def suñu borom yeggaleel la ko ci mbaaxam yi kon ñu wàccee ndi kàddu yi foofu ah, ah, di leen ndokkeel ah, ci weer yu tedd yi mooy weeru mawlidi nabi rabi al awal di leen ci ñaanal sunu boroom mu defal leen ci mbooleem seeni mébét te mu ànd ak njiglaay kenn ku ci nekk limu fas ci xolam digeentem ak sunu borom digeentem ak l'islam digeentem ak lépp lu ba yàlla defal ko ko tem jikko yàlla sunu borom nam xol yi ñu bëggante ñëpp yeenante jàmm yàlla nam xol yi génn ci soxor ak iñaan génn ci mbolem jikko yi nga xamne ne lislaam da koo tem nekkon fi l'islam tere ko jërë ngeen jëf وصلى الله تعالى على sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran ñi ngi ñaanal nag cheikh mouhamadou mourtada mi mu yàgg fi lool te wér ñu yàgg ànd ak moom jotaay bi yàgg ko uh, ànd ak moom ci ci ci ci ci ci ci lislaam ak dundal diine rek yàlla may ko kàttan tëbb ko kàttan ak wér-gi-yaram yàlla yëggaleel ko ay mébétam ak i naalam uh, uh, ba mu bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxawal lislaam bokk ci ñi nga xam ne dañuy wéyal euh, taxawaayu Serigne Touba boobi bokk ci ñi nga xam ne dañuy wéyal taxawaayu Serigne Saliou Mbacke ci doomu aadama yi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.